I 알라우 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقت في اليوم وقت على به نيول الجديد تجد الزيارة تجد التنويوك سنو كيلفا سنو سنو مختار مكة نعني رسوان الله تعالى يارد يارد الجديد مركب شعر خليل ستك سنو سالو تنويوك من تنويوك ممو انتحمن تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك من تنويوك koy nuyu di ko ziar di nuyu mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoom ñu seetaan di ñu déglu ginnaaw loolu yàlla subhanahu wa taala mayaat ñu ak fekk ak tal ñu bokk di di leen yëgal yéen ñëpp bis bi nga xamante ni amuñu lu dul moom mooy bis bi nga xamante ni mooy bisub Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram muy rabi asra zil qaada bis bi Serigne Saliou Mbacké gën a jamono ci zahir ren jii nag yàlla def muy dix-neuvième édition ñu fas yéene bokk di ko waajal comme ni ñu ko daan def at mu nekk dees nañ ko amalee te daare tasawul subaan bi ñuy tuddee mi taawul xuyr wal maraat képp koo xamante ni tamit yàlla def na nga bëgg a dem ca daara ja wut nañ ay oto yu jàppandi képp ku ñëw kër Serigne Boubacar Diop oto yi des na la yóbbu ca daara ja su yàlla defee ñu ak te bis ba incha allahu taala bis bi nii lañ ko fas yéenee tërale li ci njëkk mooy njàngum alxuraan ndax ku tudd tasawul subaan ku ne xam na ni seen lépp yar ak xamle la te ku wax yar ak ne xam ne li ci jiitu mooy alxuraan ci bis boobu tamit fas yéene na jàng téeméeri kaamil ak benn ci bis boobu ci lañ ko fas yéenee mottali ñaareel ba mooy wéyale ci njàngum xasida tàmbalee ko ci turist bi ànd koog mbooleem kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ak yi nekk ci yeneen dëkk su loolu jàllee fas yéene nañ fa amal aw waxtaan woo xamante ni waxtaan wi li muy tëdde mooy taxawaayu ndaw ci njàngalem Serigne Touba dawru sabab fi taalimi Cheikh al Khadim ginnaaw loolu dinañ amal jataayu kilifa yi muy cérémonie officielle ci ci njiital Serigne Saliou Touré yàlla na ko yàlla yàggal ci barke Cheikhul Khadim su loolu jàllee dees na ko tëj ci njàngum xasida boo xamante ni kuréel 1 tasawdu subaan moom moo koy taxawee ba 19 heures jot kon lii mooy li nga xamante ni moom mooy programme bi ñoo ngi jégalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk taalibe yi des na kàddu xam ne mooy Rabihatul Faqida jël kàddu gën a ci ñu jëwriñu doxu Sufaan bi xam ni ñoom seq dëkk bi rawatina ñi nga xam ni ci jiital Sëriñ Saaliw Kuré mi xam ni moo fi teewal xalifa général di murit di ko woo ci gis bi di ci teg sëriñ Cheikh Mbacke dëkk fii ci Madina Fall di woo sëriñ Moussa Fall ak mbooleem njabootu am Cheikh Ibrahima Fall gépp di sëriñ Cheikh Ngunda Fall di woo sëriñ Cheikh xalifa sëriñ Ababacar Lo ak mbooleem njabootu sëriñ Babacar Lo bi yëpp sëriñ Amdi Moustapha Lo jëwriñu quartier Medina Fall di sëriñ Fall Lo ak mbooleem imam yi nekk ci dëkk woo sëriñ Aliou Diouf imam di woo sëriñ sëriñ Moussa Diop imam di woo sëriñ Mbacke ak mbooleem jàngalekatu alquran yëpp sëriñ Fallou Fall ibnu sëriñ Assane Mati Ball sëriñ ak mbooleem daayira yi aju ci kuréel lamp yëpp di woo am Abdou Xollu ak mbooleem daayira yi aju ci kuréel safar yëpp di woo sëriñ Ngouda Ndiaye ak daayira su buntu xadam bi soxna Daba Ndiaye ak mbooleem daayira yëpp mbooleem soxna Xadi Géey ak mbooleem taalibi yëpp mbooleem daayira leen woo di woo kuréelu Sabaabul Muridiin ak mbooleem daayira yi si aju mañ max nóore ni njiital sëñ Xaari Fall di woo mbooleem jullit ñëpp ku nu ak ku ñu xam bis bi ñëpp ñoo ko séq di woo mbooleem jullit yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw asalaamaaleykum taala wa mbokki jullit yi mbokki taaliba yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax di leen fàttali sunu bis bu màgg bi muy rabiu achara sil qinda ñu koy fàttali mbokki jullit yi mbokki taaliba yi rawatina soxna yi te daayira tasawudu subaan yëpp ci njiital sunu wayjur di soxna Ndaak Njaay ñu koy fàttali sunu bopp tamit ci bis bu mag bobu muy raabihu achara zil qida mu di bis bi sëriñ saalihu mbàkke feeñe jamono ci zahir ñukoy yëgal mbokk julit yi mbokk talibe yi diko yëgal wa daaira miftaaxul khuyur wal maramib ñu diko yëgal wa kurel safar diko soxna ñi bok ci kurel safar yep diko diko di suñu mbokk tidiane ci njiital soxna khadige diko yëgalit waa làmp waa kuréel làmp yëpp ak mbooleem soxna yi nga xamante ne ni ñu ngi bokk ci nekk ci dëkk bi yëpp te bokkuñu ci benn daayira di ko yëgal ñi nga xamante ne ni ñooy soxna yëpp ñu ngi leen ko yëgal bu baax a baax bis bi nag mu ngi tombeek le 18 août ci 2016 mi ngi tombeek le 18 août 2016 ci daaray Tasawudu Subaan mu di Miftaaxul Xuyul walla Maraam ci ginnaaw ba ñu ciy fàttaliwaat soxna yi taxawaay yu mag yi nga xam ne ci lañ moom lañ ko daan taxawee ñu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci bis bi ndax bis bii di bisu Serigne Saliou Mbacké bi mu tegoon ko ci loxo yi nga xamante ne mooy waa daayira te saw di subaan gis nañu tamit bu baax soxna yi daayira bi niñ ci daan jàppe bu baax a baax ak mbooleem daayira yi nekk ci biir Madina faal yëpp rawatina waa kuréel safar ak wa kurel làmp yep ñu soxna yi ñu ngi leen di wo ak mbollem daaira tidiane yi nekk ci bir Medina Fall ci njiital soxna Khady ñu ngi leen ci wo bu baax baax ñu fédali waat la laxasaay yi bu baax baax bis bi nak ñu waat ko mi ngi am le 18 août 2016 ci daaray tasawudu subban mi ngi wax miftahul khuyur wal maram mu nekk ci ginaaw CM bi يا ربنا bashir خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب labib وهب لي الحلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل صل على الصالح وهو المسلح الصادق الصدق صلاة تصلح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته